français doo ko ah tu as bien parlé hein c'est une bonne question c'est une bonne bonne question waa néna mbolo mo dem bu affaire rek bu jaxé rek gaay drapé ñi ay ñi de ñu باينس نانا المارس بوت كميز حال يذهب وياتي دو صح دو دغ جوليونا تي اصل اصل امو جولي اصل امو جولي لا سيفاتان ولا ولا امو جولي باي مبولو مي با فيني مبولو سي ابراهيم مي تا باي مكو وون باي مونيكو مان تا خيري مانديو tey boo mànnee ba man ta mënu naan kenn sama nigi baaxul da nga naa ba na dur xëy na ba na caaj bokku ñoo ko naan ko te dutu mandi loolu moo tax mbooloo mi dañu naan ba mandi ma am lu ma ne la benn bouton ma laal rek gaa yi wërs laal bouton aju ma laal bouton ñu wàccaat te bañee aju iskili bi yéeg dañ naan naasu adru sillu ma ko adru di dem di yëg bañ daa ba yëg ma laal benn bouton ñu wàccaat andi xale mboolem pi yalla subhanahu wa taala lo motax tax mi lo man di wax bo no xoti asama di ñew kenn du yow du daanu ko gis ma doon fi rek gan la fi ñu sikkar ba nga daanu gan nga fi takk seen mbaalam se gan nga fi tux sigaret moom moomoo ko loolu moom doo ko jël moo tax yonent dafa ay sangara Cheikh Tiyaan ay poon bàyyi ay wujur dégg li ma انت محمد دافا اي سانغرا نوخ ماو شيطان اي بون ساجورو با اي وجود امغي غيسنا لي بو ويري سي ياو سخني بروم نوخما من بول ام ما ام اينا لاكو قط نوكو بروم بون نلا بول ام ما ام ما داك ماي غرب بي و نن وزجر يجداني borom bu jur bi na la efface na tams wala xam ma ñii ñett ñii na dal gaa yi moo tax dañ naan ba man di da cocc di lekk naan takk jabar di war oto yu rafet ay pasro la ñuy war gaa yi du soxor nag la yu ne gis ne yu garaw la sol gis ne yu garaw la sama gaay yi du sol kenn ku ne am nga kër gu rafet goo am eh, loolu la lool nag soo ne baaxul da ngay wax wi di nga yàlla kul man xarama séentulaay wa tëyibaati waaye loo ko aaye gaay cam xaasa yómal xeemal akbar ah, cam nee na macha allah bay jàngale woon cam jërëjëf ci li nga nekk rek waaw sama sëriñ imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé radiyallahu nee na ci li nga nekk rek waaw ci la bay li li nga nekk rek loolu nga loolu la Cheikh Ibrahim nekkoon nee na sëriñam seex imaamul akbar xam ngeen imaam bal xam ngeen ko yéen nee na loo cay bañ lii bàyyi nekkoon la nekkoon lii bàyyi nekkoon la nekk mu ngi nii moo ko waxal boppam tey tey loolu tey loolu imaam wax na ko seen kanam ngi dugg yéen Cheikh Tidiane mii dama seeral mu ne ma sanga njaay xamul xamul kenn moom ku dikk mi da rek moom ko waxal mu ngi nii imaam Assane nee na imaam Assane imaam Assane sama sëriñ waaw lu nekk ci man moo ko def ci man. waaw dañ doon lekk muy tibb di ma jox. nee na nitu yàlla. du fiir. waaw du soxor. dëgg la du wañaan cëm du fiir du soxor du iñaan. nee na may yàlla yi yàlla yi ñu doon joxe. Hmm. ba tey mu koy joxe. te ku ko neex la koy jox nag. nee amul si. bàyyi ñuy nettali waayu Kurasaana ba shérif yi asoon koon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbir mi amul si amul ñes amul ay dara yàlla rek la xam nga seen seen yi xam nga man seen seen samay kan lañ dama doon gàmmo benn bis gàmmo benn seen seen ñëw fa ku baax ci man sama soppe la woon man mii mi doo la mbaax ma ne la ko gis na benn teg laa ko ne is na benn tali gi caam sa koñ benn tali conférence ki fekkee na ko mais waxtaan boobu waxtaan boobu gaa yu tàccu rek ma mu yàgg mu tëm ne ma waa yow noo sant ma ne ko Ndiaye man ndax sëñ dan san Ndiaye ma ne ko sëñ bi sant ma ne si ma ne ko xamu si luy firi man maa ma ne ko yow xamagu luy firi de si mooy loo xam ne balaa dagg dañ koy téye dimbale ko ku ñuy dimbal na yow ma xam ma nooy def waaw ah, sa waaye samay kal lañ moo tax ma xulo he bëri na de man naa ni ñee na ñee na keroog kay ko war bi neexoon trop ma ne ko yow daa xamul ne njaay njaay la yàlla soo indi ci alxuraan daana gis nga gars de ayaa ngi ñëwal ci man rek fi fi kuli wuy xëttani fi kuli wuy xëttani ayaa ngi ñëw rek alxuraan dafa wax mu ne yonente bi indi seen yu bàyyi woon na ka ina maa bàyyi woon ñi jaayante yow njaayante yow man la jaayante kon njaay lan la waaye ma ne farle farle njaay alxuraan ne fa da nga bëgg dugg àjjana da nga bëgg yàlla àjjana mu ñu yàlla kon na fa sabsiru bi bayhakum alasi bayatum bi wa zalika njaay mi huwa alfusu azim jërëjëf jërëjëf laaj bu bi euh, mhm. ku fi toog ñoo def dëgg la. la dëgg la bëgg dëgg la. dëgg la dafay am lu muy loo xam ne mënut a ñàkk. waaw xam nga man. billahi lasi laa ilaha illa huwa man kenn mënoo booleeg doomu baay mbasatu baay kenn mënu ko da ngay jëm da ngay sonn rek kenn mënoo booleeg doomu baay mbasatu baay parce que doomu baay foo leen fekk raamal leen bu ñu ñibba jox la adda ñu ñibbi. te lii muy nit te bu ñu toogee ma wax seen baay ñu kontaan ma joxe preuve sëñ Mamour Niass bi coow li bëree bi coow li bëree jamono bi sëñ ku baax ku sell coow li bëri ci man mu bett ma ci xadra comme nii xadra juma bett ma ñëw ci xadra bi toog boobu boobu temps boobu am nga sax boobu moom maa ko defee géej mu ñëw xam nag bëri gaari oto ma ne ko na sëriñ mu toog càmm mii o oo càmm mii laa oo ma ne ko bu fekkee dafa ñëw ngir politique waxal ci politique man ma bàyyi ma ros bu ci ci bàyyam nag noppil ma wax ci bàyyam fu mu fu mu kuppar foofu la mu ñëw moom maa sëñ Mamour toog ñu xadara ba pare mu ñaanal ñu ma gis waxul dara ma jóg ak micro bi di tëgg papam di ko yóbbu asamaan juróom-ñaar di ko wax dara xutsi di ko indi xat léeg ma def yàlla léeg ma def ko yónni ma def ko Cheikh ma def ko bàyyi léegi am na benn ku ñu tuddee Xaasim Dia Amadou Xaasim Dia mu ngi toog dafa na bëri na waaw kii li ma wax kan ma ko wax sincèrement ma ñëw da ko bëtt sama bàyyi ko wax li wax yëpp sama bàyyi ko wax daal koon bu ñu demee daal la koon bu ñu demee nee na takkalam tooraf waxal ñu xam la sa njaay xam naa la bis gi tey xoolal a la ba di samedi dimanche ci ngoon mu ooma téléphone sëñ Mamour Niass Labaare ne ma lundi nga gaaw dem pikuru ji ci ngoon nga dem màkk ana xanda doom bàyyi añu mun xamat laa dina kër dem màkk te li ma yóbbu màkk xama lan tagga bàyyam dong dong la ma yóbbu màkk sëñ ma dem màkka doomam ji mu boole benn doomam sëñ Mansour yéen yàlla yërëm ko su ma demee ba xaw paan ci alal ma ne yow sëñ Mamour Sour poste bi jeex mu ree dama sanga njaay yow moom yaa may sonal di ma ne ko du ma sonal sabay ma sonal sabay ma fendi a te ma boole yow jox ma xaalis ma dem mu ko di passe nu xeet jox ma ne ma demal su ma demee nag di pay gars yi xoolal man dama reewoon dama doon pay gars yi su ma rek mu jeexat ma ñëw ne ko ah jeexat na de mun maa ah, yow noo def ma ne xanaa ñi ma àndal sëñ barka rasulullah kooku xam nga ne te xoolal billahi la si laa ilaha illa huwa boobu ba léegi saa yoo ñëwee hôtel saa yoo ñëwee Dakar hôtel lay dal woowul ma téléphone ma dem fekk ko su ma demee lañ fa indi maam moom yëpp sama kas lay teg sama kaset yaa wax kaset bi yaa wax kaset bi mu ne ma du ma del dara du yow damal déglu ba xam li nga nekk dëgg moo tax ma ñëw ci yow déglu baax li ma lay wax mu dama yàgg mu ne ma bi muy bëgg a faatu li lay xam nit yàlla du sukuraat billaahi la si laa ilaha illa ci ngoon càmte sa sara mële dafa ànd ak benn taaliba sëñ Maamour andil ma benn lettre ne sëñ Maamour ne sam da nga fekk hôtel hôtel place bi ni ko Dakar càmm mi magoon di lii dara bi muy lool ma dañu lettre bi sama poos ñëw bés ma ko ma denc ko di pare pare kay samedi kay pour dem ci moom ajjuma ci ngoon ma di wax dara comme nii ñu xam ne ma sëñ Maamour gaañu moo tax doom bàyyi maama du ñuy ci man loolu la ko wax man sëriñ bi dooma bàyyi ñëpp sama soppe nañ baaba leen bërki dem la la jógee këram baaba leen bi ñes dem naa këram bërki dem jógee fa dem bàyyi kër bàyyi mbay ems sama soppe bu baax boobu bàyyi mbay ems ajjuma bi passé nii bi mu tasee ñii gisuñ ma dama na roseet ànd ak Omar Ñaan ak Lamine Jool ak Baba Ndaw mii jël sama oto mu kii jël otoom ñu ànd dem ma seeta sëñ Mahi Cissé li nga wax léegi ma sukk ci kanam nuyu ko waxtaan ak moom mu dama dama rafet ma ne ko waaye sang nii lay mel mu ne man li ma gën a sama àddina xam nga lan la billaahi laa ilaaha illallaah ma micro lay waxee micro mooy sama photo bi ñu def def sa photo da ngaa foog ne yow la naqadi man sax naqadi ma na ko yow yaaram nga sang nii lay bi gars yi galgal nañ ma ba tey pour darme ci koom gars yi dama galgal ba tey pour darme ci koom waaye xalifa na pat rek que dama ko seeti moom xalifa bi ànd ak mbooloo mi ma dem mu ne man li ngay wax maa ngi yow dëgg rek ngay wax xaal bi nga yor sax dama neex man tey nag yaay noonu ñëpp lii la wax moom yëkkati kaamil kaamil alquran teg ko sama loxo ne ma kaamil bii maa la ko jox yomal kaam ci kanam bàyyi ma laaj la ko bàyyi sedd ko parce que bàyyi moo noonu wala dara sol wasal kitaab kon kitaab baa ngoog mu ne yow surtout sax dama neex sang yow sang nga moo tax nga sang gaay sa tali am nañ xam-xam bilaay moom wax lii moo tax man gars yi su ma gis ñu may def ñu may jéem a boy dooma ba ak sëtu baay damay damay ree damay nelaw damay nelaw ba man di xam naa dara du xew dara du xew billaahi la si laay la dara du xew barki démb laa toog fii toog ak bëkk néegu imam Cheikh Tidiane Cissé mu ngi toog fii comme ni ngeen toogee aju yi passé fii la xadara Touré moo waxtaan ci waxtaan ba pare di wat di tagg imam na imam ma tuggi jàng ko fenn

ma tagg sama sama sëriñ ma ne moom itam bi mu nekk ci ci ci imam bi dëgg vaari gars yi ba léegi nii ñëpp dañ ko faaw mooy imam ratib imam imam akbar gars yi soppe na wax bi nag soppe sama wax bi dem ne ko man maa ne imam imam imam Cheikh jàngul xam nga li ñaaw na wala hawla wala quwwata kay bi lay si la ilaha mu ngi ci internet bi sami mu ngi ci internet bi ñu ne man maa ne imam imam Cheikh Cissé jàngut ah, xanaa imam même soo ne jàngu sax gàcce man daraam gàcce di koo xam ne sa ajo mooy taw téye xut bi du xool benn kayit dóor dóor ba gars miir mu ne allahu akbar yàlla ko gërëm naa la moo kabar ca xadul qudsi ruko ca xaqatul muhammadi rafu ca ahmadi sujjood oh oh du ko yeggale tey kooku bi ñu xool imaam yi adduna bi moom mooy ñàkk ta ñaata position yaakaar na waaw ko ah? mooy treizième adduna bi mooy ci treizième dégg nga wax bi de treizième yi di gën a influé ci àddina bi moom ci la bokk waaye kooku man def naa banaa jàngu li ñaaw na sos baaxul sos baaxul waaye nag na yàq may defar rek ñoom na yàq may defar rek man ba ñu ma kenn nañ tudd mbalim bi bu baax la waaja waxoon sëf leen ma jur leen ma danaa ko waaye yoo xam lu ma la wax cam laal naa waayam ji laal na waayam ji xol ba laal laal sëfle ma jóorle ma dara ko jàpp cam cam loolu xam ne li ma ko wax a ñaar xam ñu ñett waaye ñaar xam nañ asiru maal abrari hiin asiru wa zanna hidaw ni huna asiru asima abrari laahi taala mu ne maa ngi xam ne sama noon yi ñu jàpp sama loxo ne ñoon noonu ba man man saabi laan man Ababacar ngi nii Omar ngi nii Ousmane ngi Aliou tegaa ñoom dañu defee ay noonu ma jàpp moo ko bind Bamba bind loolu asiru maal abra hiina asiru wasan hidda nii honaaka asiru man man naa waxtaan fu ne waaye nag dama fiir nag waaw ah, dama koy fiir ci Baye Niass tam dama fiir de yii wuu dama fiir man su si fiir sot tot tot tot tot tot dama ne faire pour nekk taalibe Cheikh Ibrahim je suis faire pour être nekk taalibe Cheikh Ibrahim je suis je suis le le détenteur de la fayda le détenteur maa ngi sant yàlla baax sëriñ bi man bàyyi lay liggéeyal man bàyyi lay liggéeyal sota bàyyi bi xamul ma léegi dafa tok fi law tamone ah sa Ndiaye kontaan naa sa gars ba leg ñu ñu ñu ni ñoo ne ba tey lii la wax leg leg bu toge fi amul kenn ku muy ñëw sama xarit mer sa bay ku ñëw da ngay contane do bay ku ñëw da ngay contane waye bu do bay contane nak sa sët bay contane nga mer del mooto bi xëy bay bàyyi law neena nee na isa radil moutara an nii fan ubal mbaqal wusu way xëy in qadubu tum bi suxtikum la bàyyi ñu sa rat law gaa yi dañ ko ne inkar jamonom di ko mu ne bu yàlla gën yuntu gërëm ku mer na de waaye man doomu baay man bàyyi gërëm doomu bàyyi gërëm sëtt bàyyi gërëm ku mer de yàlla nañu wax rek gaa nañ nañu yi wax rek gis nga léeg-léeg maa koy tey léeg-léeg ma def benn xasar yàgg ma def benn ma de ma jàpp ma dóor benn kaddu wax ko kaddu gu gu day waar pour bàyyi ñu waxaat du nga waay tey tey li mu nekk ma ta wax ma tar de gis nga bu fekkoon ne tey du bisu yuntu bi nii damay wax benn njaayeen njaay bu xaw sew rek bàyyi leen ko nag <laughs> sama njaay waxat ne nanga ma ma di las lasi rek di nag natt rek <laughs> mukk di wax na bay yuut nag man li may wax nëbatuwuma léegi seen waxtaan mooy Sanga Njaay jàngut bu mën a wëy yaay jàngul te ay jànkat rek ñu ma topp lu koy may karaama xanaa lii may karaama jàngut te ay jànkare ñoo ko topp ay xaafis alxuraan jàngee ñoom garaamee ñoom naxu ñoom mëntex ñoom usu ñoom bayaat ñoom sëmax max sama gàtt ñaa ngi ba sëmax max ñoo topp Sanga Njaay bu njëkk dama dégg ñu ne Sanga Njaay day jaay day jaay télé mooy si kiiraay mais danaa ko def ci koom jaawul xam nga bi daa ko def ci koom ne amul kër maa daa ko ci koom kër billaay li si laay la dañ naa na amul oto diw rek amul oto may naa may daa def ci ko am oto oto bu xënt bi oto boo xam oto bi sama oto bu njëkk bi ga sëñ bi benn marché su ma gaaree fenn gars yi dañuy puusal ma tàkkaat na ba may man gër laa ma amul problème dama dem gana ji benn kër xam nañ ñoo xam ne ko dama dem gana ji benn kër ñi may sobotee ma wàcc ma wàcc ne maa ngi ñibbi man xam nga dama am taal oto bi oto bi bañ a tàkk fekk ay fekk ay gars yu romb ma ne baax yi gars yi kaay may ma lox gars yi di xaq tey may la may la ma lox rek gars yi may ma lox ma ne trrr mu ne prrr rek ma dem man mii di wax yow léegi ñu demam yàgg gars yi ko doon wax mag daal yor nag benn oto bu ñu tuddee lan de bu bu mag ba escalette ma romb leen ñu ne é mbaa ki jaay doru yi tey pauvre la ëllëg mu nekk xam gis nga gars yi moo tax Youssou Ndour nu su dama dégg ma lépp benn lépp ak doom ja mu ne góor gay nee na dafa war benn mbaam ñoom ñaar romb dëkk ba waa dëkk ba na ñii ñii ñàkk yéen mande ñaari punkal ci benn mbaam ñii amuñ nga demande kenn ka mën a sox paa bi ne doom ji de nga ñii li ñu wax baax na ñu dem ba jub benn dëkk paa bi wàcc bàyyi xale bi ñu romb dëkk ba xale bi gàtt bërka bi laay xale bi mu ñàkk jom mbaa mu rëy mii paa bi di dox nii bàyyi ko fii nii xale bi réew bi na gongu ci ko bàyyi paa bi ñu génn dëkk paa bi ne ko dégg nga am ne ñu dem ba jub beneen dëkk paa bi xale bi wàcc paa bi yéeg ñuróm dëkk ba gars yi ne ah xale paa bi moo ñu ko yermande xale ba ndoy bàyyi ko muy dox mooy dégg nga ñu daam wax ñu dem ñu dem ba jub beneen dëkk nag quatrième position ba ah, xaqaa yax mat na ñu bàyyi mbaay mu dox kenn ñu romb dëkk ba gars yi naan ah ñu ñàkk fayda ñaari ne am ba mu réy ñu bàyyi ko muy dox ne mu ne gis nga kenn du mucc kenn du mucc lii nag la sëñ bi man ci dama kenn dara asalaamaaleykum jaajëf Cheikh Ibrahima <laughs>